télé bi bégal sama askan Ladoum TV c'est Ladoum TV ding ci gis sa bopp falun émission chez le vétérinaire dina ànd ak yow saytu wér animal moytu sama waaw am naa mbégte parce que bon élevage bi moom yaakaar naa ku ñëw ren ci foire bi gis ne niveau bi kawe na euh, donc bu ma ñëwee man tamit bokk ñi nga xam ne ñu lañu sélectionné pour ñëw waaw donc euh, comme je disais xam nga maal bu mag euh, boo ko dugalee si diir bu gàtt nga bu ko préparer pour foire mun nga ko jox loo xam ne du du moom du du mu war a yóbbu forcer ko jox ko vitamine mu am ni mu toll dem foire est loolu mooy jubluwaay bi jubluwaay bi moom pour man mooy liggéeyu maal liggéeyu maal bi te comme loolu laa ko bëgg loolu laa ko jëlee dama ko bëgg may temps mu liggéey liggéey bi maintenant bu war a dem foire suba dina dem foire donc moo tax ma pour ñëw quoi vraiment. lan moo tax nga recruter ko lan nga gis ci moom ba tax nga recruter ko ak lan la fan la nga bëgg mu yóbbu sa élevage. voilà moom dama ko dugal ngi ñaari mbir d'abord phénotype boo xoolee xar bi xam xar gis ne ndaanaan la xar boo xam ne daf ne 1 mètre 14 lu mu gàtt gàtt atoru garo bu doy waar mu am taxawaay am kees nga xam ne kii moom li mu yor ci biti bu ko boolee génétique bu wóor bokk fu wóor parce que moom papa ji avenir la avenir doomu kilifa la ya ji nag surtout mbir mi. yaa ji doomu Aada Mbaye la Aada Mbaye doomu docteur la docteur doomu Tyson ma gis production bi aussi en dehors de bi dama gis lu muy jur ma gis ne famille yi muy def surtout famille ñëw ñoo jéggi dayoo ci taar mais également ci dayoo ma ne kii bu ñëwee nag fi ma nekkoon tey dinaa fa jëm dinaa doxee jéego jëm ci kanam donc loolu moo mu dugal ko quoi vraiment. macha allah loolu am na solo. ñu doon xaar tamit beneen femelle boo xamante ni si ñëpp doon nañ ko xaar di ko bàyyi xel bu baax baaxa baax a baax ñu ñëw gisuñu ko Issa lu waral loolu ëkku bi lan la. non ëkku ma sax mais xam nga femelle boobu dafa sori daa tëb ci un champion macha allah euh, li ko dese xam naa motul sax 10 jour donc bu ma ko indi woon ak transport bi ak coono foire jógal ma xool xar yooyu mën na ko indi gàllankoor te jaru ko tëb lu sa xar pendant 4 mois bu ko yàq ci 10 jours vraiment du donc moo tax ma naa ko bàyyi demoon na foiru euh, technopole bi yàggul dala même pas un mois occasion bi garaawul ce n'est qu'une occasion ce n'est qu'une partie dina am occasion demaat foiru peut être tëngëj incha allah loolu am na solo ñu gis euh, Issa am na ñaari absent yoo xam ne ñëwul mais am na lu ko fi remplacé yu gën a rafet yoo xamante ni si kenn foogeewu ko woon Issa nga présenté ñu sujet yooyu waaw macha allah donc sujet yi fu mu nekk nii moom ñu fi nekk euh, damay ni trois femelles ñaar mag ak benn espoir Euh, bu ci ëpp euh, nekk euh, nii moo ci gën a mag moom doom Mifta la moom mooy l'écran am na ñetti porté yaay ji doomu Eumeu Sène la ok donc bis topp mooy bële mooy Aïcha moom yaay ji côté Cheikh Diop la papa ji macha allah Pa Massour am na deux ans am ñaari porté benn bi muy nampal moo nekk moo nekk nële mu am ko doomu karo ji ma yoroon donc espoir bi mu nga am 18 mois moom nekk ci bi nii nekk côté kilifa doomu kilifa la papa ji nekk surtout commandant Kosso direct nekk brown papa ji mooy brown donc moo nekk nii donc mooy daal ñaari mbote euh, espoir bi ak doomu euh, sëriñ Cheikh Diop bi ku nekk da nga nàmpal benn mbote bu jigéen donc ñoo nekk noonu quoi nga giseen ne la euh, jeune mâle bi mu ngi am cinq mois papa ji doomu Mifta la yaay ji doomu Khoudoss Khoudoss doomu Soubérou donc moom mooy ñëw pour taalal gerte gi nekk jeune mâle boo xam ne mooy rafetal gerte gi daal voilà. maal bi taaral na gerte gi Issa nga fàttali ñu adresse bi ak sa numéro téléphone pour ku bëgg a ñëw ci bergerie. waaw donc ku bëgg ñëw bergerie moom euh, yomb na xam si Aliou Sow du golf la moo taxal ak hôpital Dalal Jàmm bi wala pharmacie golf selon fi ngay jógee euh, villa bi nekk villa 524. voilà sama numéro téléphone 77 la 333 11 45 merci beaucoup. jërëjëf Issa cant ak